docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ak daal euh, la mu tontu ñi nga xam ne euh, ñooy critiqué maanaam euh, defaraat bi ñu a defar hôpital La Dantec ak personnel sanitaire ba ak malade ya ak ni ñu leen war a taxawoo. enquête ba léegi docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye la xëyee nee na nag ministre de la santé yëkkati na kàddoom ngir daal kon indi ay tontu ci ñooñu nga xam ne kon daal ñu ngi ŋàññi. Euh, ni ñu doxalee euh, mbirum transfert malade yaak lii di personnel euh, sanitaire ba gannaaw bi ñu bëggee defaraat hôpital Aristide Le Dantec ñëwaat nañu dem ci Ousmane Sonko mi nga xam ne nag démb déclaré na ne dina nekk candidat ci élection présidentielle bu 2024 Le Soleil yéenekaay ba léegi Marie xemes mbom Ndiaye ministre de la santé la ñu fësal ci xëtam bu njëkk moom nag nee na sax amul benn malaat boo xam ne daal duñ ko ñàkk euh, taxawu taxaw taxawaay bi nga xam ne kon moom moo war Sud Quotidien Ousmane Sonko la xëyee nee nag Sonko nee na candidat la ci présidentielle bu 2024 wante itam ñëwaat nañ ci euh, defar bi ñu war a defaraat hôpital Aristide la Dantec ak ñu ne dëgg ya nga xam ne euh, kii di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministère de la santé wax na ko ca Les Échos yéenekaay dañoo ñëw ci mbirum Pape Mamadou Seck ak rëcc ba nga xam ne rëccoon na ko fële ca pavillon spécial bu la Dantec rëcc ba kon na mu demee woon ci la ñu dikkaat wante itam Ousmane Sonko mi fësal euh, candidature am ci euh, élection présidentielle bu 2024 Walf Quotidien ñu ne nag euh, Ousmane Sonko kon nekk na candidat élection présidentielle bu 2024 wante nag teewul ñii di waa Pastef am nañu daal ay njàqare si boobule mbir ñëwaat nañ itam ci Farba Senghor mi nga xam ne nee na. Abdoulaye Wade daal amul benn intérêt pour euh, lëkkaloo ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. Dakar Times ñoom nag dañoo ñëw ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yoreel ay koppar euh, këru liggéeyukaay courant bii di Senelec ñu ne nag bokk na ci Adi ak Comasel Sayed Sonacos Las Onas ak TER muy nag ay koppar yoo xam ne sax bu ko xaymaa day bëri loolu. ay milliards yu bëree bëri la ba ñu njort sax ne euh, loolu dina indi ay gàllankoor euh, ci maanaam distribution bu courant bi wante itam euh, l'observateur yi kaay ak ñoom la ñu muy remaniement bi nga xam ne fi mu nekk ni daal ñu ne ñu ngi waaye yéex na lool muy coppe gi ñu war coppe lii di gouvernement bi ñëwaat nañ itam ci Ousmane Sonko ak Demba la mu déclaré kon ne dina doon candidat ci élection présidentielle bu mille vingt 2024 Vox Pop dañoo ñëw ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, euh, Bassirou Ba bu président aar sunu moomel moom nag nee na Sénégal xiif gu métti mu ngi koy yoot xiif boo xam ne mosu fee am kon loolu la wax wante itam ñëwaat nañ ci soble bi ñu gis ne daal fan yi dafa yokk lool ñu ne sax li nga xam ne moom mooy njëgub kilogramme ba yegg na ba mille francs CFA. bés bi le jour dañoo ñëw nag euh, ci Ousmane Sonko ñu ne nag moom euh, tàmbali na xeex ba ngir présidentielle 2024 wante itam ñoo nañ ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye nee na nag euh, ñii di personnel bu hôpital Aristide Le Dantec dinañ leen kon affecté ci yeneeni structure fi ñuy defar kon defaraat hôpital bi témoin ba léegi Ousmane Sonko la fësal ak candidature am si élection présidentielle 2024 wante tamit ñëwaat nañ ci institution bii di au conseil des collectivités territoriales ak la opposition bi ne amul njëriñ ñu ne nag euh, am na ay analyse yoo xam ne sax dëggal nañ loolu opposition bi wax libération yéen dañoo ñëw ci euh, fële ca quartier Daaru Ridwaan ca Kaolack ñu ne nag euh, ab ku ñuy woowee El Hadj Diop daal mbirum escroquerie financière kon boo xam ne daal ci la taq rip ñëwaat nañ itam ci euh, ay ñoo xam ne daal euh, dañ leen euh, jàpp dañ doon nekk ci li nga xam ne mooy internet bi naan daal dañuy joxe ay emploi di ay entretien ak yi ni mel ba sax am ñoo xam ne kon jotoon nañ leen ci nax tribune yéen kaay dañoo ñëw ci euh, Sonko ñu ne après Bougane Gueye Dany nag euh, ak euh, ka ca topp ak Gakou Sonko itam nee na nekk na lii di candidat ci élection présidentielle bu 2024 wante itam ñu ngi sénégalais yi ñu ne nañu moytu li nga xam ne moom mooy pooju ginaar yooyu ñuy faral di jaay ñu ne sax lu toll ci cinq sac boo xam ne bu si nekk am na cinq kilogrammes marine nationale teg na ko loxo réew mi quotidien dañoo ñëw ci fal gi ñu war a fal lii di premier ministre ñu ne nag fi mu nekk nii booy xool sax Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi ko nekkoon euh, moom mooy daal ki nga xam ne euh, moo gën a taxaw ngir njiitu réew mi euh, falaat ko stade yéen dañoo ñëw ci suñu gaynde yi nga xam ne eh, ñoom ñooy siis Diallo Alfred ak Bamba ñu ne nag fi mu nekk nii ñoom temps bi xaaru leen gannaaw bi nga xamee ne nag kon seen euh, Sénégal ëllëg euh, ci football euh, fi mu nekk nii wóoragul l'évidence quotidien dañoo ñëw ci Mouhamed Massaly bi nga xam ne dafa yëkkalu mel ne xamee Ousmane Sonko gannaaw déclaration bi nga xam ne def na ko démb wante itam ñëwaat nañ ci li nga xam ne mooy cadre unitaire de l'opposition pour la présidentielle ñu ne Sonko ak Bougane nag daanaka booy xool sax ñoom ñoo yemi xalaat. dañ koy jeexal ak yéen kaay bii di sunu làmb ñoom nag euh, ñëw nañ ci euh, alinu Gueye mi nga xam ne taxawal na euh, combat bu Tafatine Bombardier loolu nag taxawal nañ ko ba suba démb li leen tey ci ay xibaar dafa seen teewlu ñu jox daje ëllëg jaa jëf.